loolee yokkute la ci footballu Sénégal ndax saajo mën na la muy def te na nekkul équipe bu ndaw kon loolu mu def yokkute la ci footballu Sénégal waaye wax na tamit ci ballon door bi ñu war a joxe la 21 bii di ñëw nee na Sadio Mané nag waru koo xëccoo ak kenn ndax mooy ca favori wax na tamit ci Edouard Mendy mi nga xam ne atum 2021 ballon door boobee kenn joxewu ko nee na nag wërsëgam la woon de waaye nag kenn joxewu ko suñu ko doon joxe at moomu moom moo ko waroon jël waaye loolee mujjuñ ko woon amal bii nag ñu jublu nee na Sadio képp moo ko war a jël waaye tamit wax na ci équipe national bi nga xam ne mooy Guinée ga mu dëkk nee na Kaba Diawara mi leen di tàggat nañu ko muñël ndax xam na la muy def te mën na ko kon ñun waa gine yépp nañu ko muñël mu liggéey journal bi tamit ñëw na ci Premier League bi Premier League boobee nag amoon na ñaari doomu Sénégal yu fa teewoon am fa taxawaay bu ama am solo kenn ka jugee na fa muy Sadio maane jamono jii nag kenn lañu fa am muy Edouard Mendy koo xamante ni moo fay teewal Sénégal ci am dayoo maanaam taxawaayam Sénégal fa waaye Edouard Mendy mii kat jamono jii moo fa nekkal sénégalais yi ndax la muy def mën na ko te jox nañu ko cër foofee ci cër ñu jugee stade yéene kaay dem groupe Futur Média fekk fa record yéene dem ba mbay la fësal ca xët wu njëkk woo jege na lool ngir ñëw ci équipe nationale bu Sénégal bu ñuy dem ca mondial ba mu jàppale Aliou di ko xelal kii nag coach bu mën la muy def la te doomu Sénégal la tàggat na club bii ñu naan génération foot ak club bii di ñaari tali ñaari club yooyu yëpp ci Sénégal Mbaye tàggat na leen te la muy def mën na ko waa fédération bi la ñu bëgg moo di suñuy dem ca mondial ba ñu yóbbaale ko mu jàppale Aliou Cissé di ko xelal ca liggéey ba loolee ña nga cay waxtaan te jege na lool waaye Coupe d'Afrique bi nga xam ne dañ koy wërale Sénégal maanaam dëkk yi yëpp ñu fexe ba mu dem fa njabootuk Sénégal gépp gis ko démb ma nga woon ca Kaffrine xam naa ne waa Kaffrine bég nañu lool ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe lu Favre la fësal ca xët wu njëkk wa kii nag mooy tàggat jamono ji Nice ak Christophe Galtier waaye kat Christophe Galtier jamono ji Paris lay xaar ba xam waa Paris dinañu ko xaatimal contrat am déet jamono ji Nice am na coach bu bees ki leen di tàggat nii nag nekkoon na fa atum 2016 ba 2018 jamono ji nag dafa dellu si waat foofee ca Nice moom it ci fàttali tàggat na club bii di Borussia Dortmund nekk ca Allemagne Christophe Galtier ma mu fa wuutu nag moom ñoo ngi koy xaar ca Paris file ak ay fan rek mën naa dem foofee xaatim contrat ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Sun Sport alors Todd Boehly mii nag mooy président wu Chelsea ma nga feggoo ca wetam ak Raheem Sterling moom ci boppam moo yëkkati téléphone am woo Sterling ne ko bëgg naa nga football ci sama club bi waaye Sterling tamit dàqul loolee tey jii nag waa Chelsea ak seen président li ñu bëgg moo di waxtaanee ëllëgu gone gi jàkkaarloo ak waa mën Manchester City wax leen la ñu ca mën noppi nañu ngir def ca cinquante million de livres sterling ngir yóbbu ko foofee mu doxal gone gi li mu bëgg moo di soppi xar kanam ngir am temps de jeu bu doy mondial baa ngi ñëw te kat bëgg naa jàppale réewum di Angleterre kon dafa war a am club boo xam ne titulaire indiscutable lay doon loole la bëgg muy Sterling te tamit contrat benn at képp ci des. te su fekkee waa mën sa Manchester City jaayuñu ko bu saison bi jeexee contrat day jeex tàkk te Manchester City mën naa ñàkk gone gi du ci am benn dërëm loolee mën naa yombal mbir mi waaye United it ñu ngi ci journal bi ki leen di tàggat di Erik ten Hag démb liggéey bi waaye la mu xamal club bu moo di club bii nag faw ngeen dolli doole ji ginnaw ñàkk ngeen timbéer ndax kat Vangal ma koy tàggat ca équipe nationale bu Pays-Bas moo ne ko bul dem Manchester foofee baaxul ci yow ba gone gi mujj yebbi toog léegi nag la Ten Hag xamal waa mën sa Manchester moo di gone gii di li sandro Martinez défenseur bu mën la muy def la fexe leen indil ma ko mu jàppale ma waaye tamit ginnaaw bi ñu ñàkkee Darwin Nunes ndax Liverpool moo ko jël ci ñoom jamono jii li mu bëgg moo di ñu indil ko doomu Brésil bii di Antony moom nag càmmoñ bu neex la yor ab attaquant bu mën la muy def la ca Ajax Amsterdam la mu xamal waa Manchester United moo di indi leen ma gone gi ñu liggéey ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcce Madrid fekk fa Marca yéenekaay Santiago Bernabéu di statub Real de Madrid la fësal ca xët wu njëkk wa stade boobee nag vacances amu fa liggéey baa ngay wëy waa Real de Madrid li ñu bëgg moo di laata ñuy door saison bi vestiaire ya moom noppi te vestiaire yu mucc ayib lay doon nekk vestiaire galactique yu mucc ayib loolee Real de Madrid ñoo nga cay liggéey même gazon bi tamit liggéey ca loole Real de Madrid li mu bëgg moo di gazon boobee dañ koy monter tey su fa basket amee la ñuy teg moo di tapis bi ñuy basketee su fa réunion amee noonu la ñuy def su fa leneen amee noonu la ñuy def ndax bi Bernabéu lépp la fa Real de Madrid programmé mu fay am jamono jii nag liggéey baa ngay wéy bu baax a baax. président wu Atlético de Madrid bi tamit di Enrique Cerezo mu ngi ci journal bi di wax nee na Atlético de Madrid nag dafa soxla xaalis pour mu def mercato maanaam pour mu jënd joueur faaw mu am lu ci tolloo soixante millions d'euros te loole nag faaw mu jaay door ko am mën a jënd kon Atlético jamono ji ñu ngi ci guuta ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Toni Kroos la fësal ca xët wu njëkk wa ub na bopp Real de Madrid gépp li ko waral moo di kat contrat am juin 2023 lay jeex te waa Real de Madrid nee nañu ko kaay yokk sa contrat doomu almaañ bi ne leen kat jamono jii munumaa yokk sama contrat li may def moo di bàyyi ba mu jeex tàkk ma xool su fekkee sama yaram may na ma ma wéyal fii ci Real de Madrid seen contrat wéyal su fekkee tamit sama wér-gu-yaram mayu ma ma football ci championnat bu am doole ma wut championnat bu ndaw dem yeggalee fa sama carrière su fekkee loolee lépp nag amul ma tekki samay godaas bàyyi football waaye jamono jii mënumaa yokk sama contrat Robert Lewandowski tamit mi ngi ci journal bi moom nag ka muy waxal mooy la Laporta mi nga xam ne mooy président wu Barcelone pression la ko teg ne ko nag waxal ci samay mbir man li ma waroon lépp def naa ko xamal naa waa bayeedu na leen damaa bëgg a dem te Barcelone laa bëgg a dem wutal fulla nga fexe ba xaatimal ma contrat laata ñu yegg ci le 12 juillet ndax loolee laa bëgg ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport Ousmane Dembélé la fësal ca xët wu njëkk wa ne ko Dembélé métti nga say mbir métti na Ousmane Dembélé mii ak Barcelone soo moytuwul seen diggante dina yàqu li ko waral moo di kat réunion ba ñu amaloon démb te Xavi sàkk woon ko réunion boobee dara lu neex waa Barcelone jugeewu fa ndax kat waa kër Ousmane Dembélé la leen tegal comme salaire ñoom nanguwuñu ko yokku dërëm loolee tax na nag Moussa Cissokho ne xaalis bi ngeen bëgg ñoo fay comme salaire ñun noppi wuñu ngir jël ko yokku leen ko rek wala ñun ñu wuti beneen club loolee nag tax na waa Barcelone ne ko may ñu tuuti ñu càmbaraat ko ba xam waaye nag surnaal bi li mu xamal waa Barcelone moo di lu ngeen mën di def na gaaw ndax Ousmane Dembélé fan yii di ñëw dina jël ndogal gonek Barcelone gii di Frenkie de Jong it jege na lool ngir dem ca Manchester United Manchester United ak Barcelone daanaka juboo nañu fi mu desee kay moo di ci diggante gone gi bii di Manchester United ci salaire ba muy fayee ko foofee waaye bu dee ñaari club yi moom daanaka juboo nañu ñu jugee sport jël Mundo Deportivo Ousmane Dembélé la fësal ca xët wu njëkk wa nee na ko lii moo fi nekk de salaire bii ñu tegal la noppi ngir yokku ci dërëm waaye kat Moussa Sissoko la mu leen xamal moo di ñu nit noppi ngir xaati mag yéen beneen contrat waaye mundoo li mu xamle moo di waxtaan boobee jeexagul day wëy ci diggante waa kër Ousmane Dembélé ak waa Barcelone Asensio it mi ngi ci journal bi moom nag ca Real de Madrid lay football journal bii di mundoo li mu xamle moo di gone gi waa Real de Madrid teg nañu ko ci marché bi dañu koy jaay AC Milan nekk ci Serie A ba ak seen directeur technique bii di Maldini dañoo bëgg doomu Espagne bi di Marco Asensio loolee Mundo Deportivo moo ko xamle ñu jugee Espagne wutali itali wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport Maximiliano Allegri am na doole ju bees tàq Angel Di Maria ak Paul Pogba dañuy ñëw foofee fekk fa Vlahovic ak Kiyesa ñu ànd doxal loole daanaka yemb na waaye Origi tamit jamono jii ma nga ca AC Milan jamono jii may wax ak yéen mi ngi def visite médical su lépp yembee dina xaatim contrat wu ñeenti at la ñu koy fay nag mi ngi toll ci trois virgule cinq millions d'euros ci at mu jeex maanaam saison bu jeex trois virgule cinq millions d'euros la ñu koy fay suñu calculer nag ñeenti at yam fay nekk lépp mi ngi toll ci quatorze millions d'euros jamono jii ma ngay def visite médical ñu jugee Corriere dello Sport dem Torino fekk fa Tuttosport Senghor Di Maria ak Paul ba yëpp ñëw nañu ca yuufe daanaka lépp yemb na waaye yuufe nag nee nañu ñoom noppeeguñu Cambiasso dañu ko bëgg Zaniolo Koulibaly ba ca milieu de terrain Argentine bi di Paredes nekk ca Paris ñoom waa Juve noppeeguñu ñooñee ñépp ma lim bëgg nañu leen indi waaye am nañu gone goo xam ne dafa bëgg a jugee foofe muy seen défenseur bi de Delight Delight Chelsea da ko bëgg te gone gi noppi na ngir jógee fa moo tax journal bi ne leen yéen a ngi dossier bu tàng naam am nañu ngeen bëgguñu ñëw waaye gone gii daa bëgg dem ñu jugee Torino wutali Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Angel Di Maria njëkk muy wax bëgg-bëggam ca Juve nee na dinaa indi ay paas dinaa indi tamit ay bit jàppale attaque bi ba attaque bi gën a am doole Angel Di Maria moo yëkkati kàddu yooye waaye kat waa Juve ñooñee la ñu xamal Chelsea moo di sunu défenseur bi jaayuñu ko jamono jii sax su ngeen ko bëggee cent vingt millions d'euros su ngeen ko amul duma leen ko jaay kon Juve wax na boppam waa Chelsea waaye tamit c Milan ñoom seen mercato jël ñii may waaj a lim Draxler kereer ba ci Abdoulahat Diallo di doomu Sénégal loole nag suñu ko amee dina fekk origi jamono jii moom ma nga fa ñu fekkante fa AC Milan mën a doxal ci saison bii ñu jëm gaa ñu yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah